gaal asalaamaaleykum mbokku patriote yi Jotna TV di télévision patriote di télévision Sénégal moo leen di may seen émission bii ñuy wax diine ak weeru koor di ci ànd ak docteur Mouhamadou Moustapha Dieye rahmaan rahim inna alhamdulilah nahmaduhu wa nastaciinuhu wa nastagfiruh wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayiaati acmaalina man yahdihi allahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد yi teewlu Jotna TV ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaare ci weeru koor gi di ñaan boroom mu nangul leen nangul ñu nangu naafile yi sarax yi Euh, julli jang alquran yi wax ju bax lepp lu bax rek yalla nagn ko yalla nangul te fulal ñuko te bo la ñi nga xamanteni buy koor di dem day yobale seeni bakar, fekk yalla gërem leen wéru koor gi nak mi ngi dem mi ngi dem te lu gaaw la kon nak nañu profito rek wa nañu profito comme promotion la bo xamanteni euh xeyna xamul xamuñu ba xam dañ ko fekkee déwén yàlla nañ bokk ci ñi koy fekkee déwén ndax am na ñu ko fekkee woon daaw fekkee wuñ ko ren kon nag comme kenn xamul ba xam da ko fekkee nañu góor góorlu rek nañu profitoo tey nag incha allah waxtaan wi ñu leen indil te mooy umra fi ramadan taadilu xajja maanaam umra ci weeru koor mu ngi tolloog aj salaam képp ku umra ci weeru koor xamal ne am ngay tuyaaba ku aj waaye nag ren malheureusement feebar bi nga xamante ni moo wàcc ci mbindeef yépp di ab mbas boo xamante ni nattu yàlla la man nattu yàlla laa ko jàppee ku nekk nag yaa ngi koy waxee ni nga ko déggee am ñu jàppe ne ay ay loxo nit ñoo ko defar waaye ak lu mën a doon rek nattu borom bi subhaanahu bu mu wàccee ci mbindeef yi pour ñu war a taxaw seetlu ñu war a mën a dellu ci yàlla damay wax ne damay faral di wax ci sama waxtaan yi ne coronavirus bii kum yeewul dootoo yeewu mukk mukk mukk ñun nag senegal lu ñëw rek dañuy ànd ak moom bu demee ñu fàtte ko waaye tey dëkk yu bari tey ci àdduna bi coronavirus bi yee leen ba bu jeexee da gis ne danañ changer doxalin danañ avancer dem ca kanam mais ñun yàlla day wàcce nattu ci ñun ñu war a taxaw seetlu waaye da gis ne nattu bi bu wàccee sax njuuj njaaj da ciy faral di ànd waaw njuuj njaaj day faral di ànd ci nattu bi nga xam ñun ñëpp waroon jàppoo fi mu ne nii ci moment yi nga xamante ni moo moo xew. ñëpp war a appui ku ne jox sa moroom loxo ñu jàpp ndox mën a xeex euh, feebar bi mbas mi mais dangay gis ne ci sedd leen dund gi am na ñuy def njuuj njaaj ci niñ koy joxe marché yi dañuy def njuuj njaaj man daal vraiment da ngay da waaru daal da ngay wax ne ñun fan fan lañ fan lañ jëm rek seen dëkk bi fan la jëm waaye nag comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi waxee rek kama takunu yu walla aleykum ni ngeen mel rek noonu la seeni njiit di mel ndax njiit njiit yi ci ci réew mi lañu juddoo njiit yi ci réew mi lañu jàngee ay nit a leen jur ci réew mi màggee ci réew mi kon nag ni ñu mel rek noonu lay <laughs> noonu la suñuy njiit di mel ndax sénégalais dañuy faral di am ay ay proverbe yu doy war waaw njëriñ loo fekkee bay ca wewu tànk bay commencé ca wewu weewu tànk yu demee noonu yooyu la gëm ku nekk moo tax boo amee rek ku nekk boo yoree nguur rek looy fexe mooy. jox sa mbokk ak say jege naa ñaare ak ñi nga xam ñoo la jege ba ñu lekk ba suur nga doog a xool keneen loolu nag mooy suñu mooy suñu culture mooy suñu culture kon mbas mi nga xam ne moo wàcc ci àdduna bi tax na ba màkk fii nga xamante ni mooy bërëb bi gën a màgg ci kaw suuf muy màkk ak Medina ci dëkk bi ñu tëj frontières yi comme ni ko dëkk yëpp defee ndax comme bërëb la bu ñëpp di daje waalante bi dafay yomb ndax ñépp a fi ñëw fii nationalité yi jullit ñi ci àdduna bépp weeru koor gi fii dafa doon fees del del del del waaw ñëpp a fi ñëw woor si ndax kat xam nañu ne ku fi umra ci weeru koor am nga tuyaaboy ku aj umra ci weeru koor mu ngi tolloo tuyaaboy ku aj kon loolu tuyaabu gënu koo gënu koo màgg umra nag euh, ñëpp xam nañ ne du aj ndax aj moom ay fan la umra nag moom benn bis rek nga koy def mooy boo ñëwee fi nga xamante ni mooy mu war a ziyaare bërëb yi nga war a ziyaare muy dem ci xabru yonent bi sallallahu alayhi dem fi nga xamante ni mooy Uhud xaswatu oxod xare oxod ba fa mu amoon nga ziar dem masjidul qiblatayn dem masjidu quba boo paree dangay dem màkka ihram gannaaw ba nga jaaree fi nga xam mooy biir ali ab yaru ali daal di yéene dem kaaba ga def li nga xam mooy tawaaf juróom-ñaari euh, wër yi ngay wër kaaba ga def safaak marwa juróom-ñaari yoon wat sa karaw mu jeex moom kon une journée lay doon umra bi daal di jeex bokkut ak aj yi nga xamante ni ay ay fan la ay jour la dem arafat dem muna dem muzdalifa aja ah, ah, gëna met waye gis nga yalla def na ci koor magay koor ku ci umra yow yaangi melni ne aj nga moo nit ñu bari legi dañ ko xam borom barke yi euh day fess del ci aj gi ci ak umra bi kon fi day fess del ci koor gi umra bi nit ñu bari da nga fi leen fi gis kon tuyaba bi fay dañ koy fulandi ci li nga xamanteni moy euh wéru koor moo tax jullit bi war na war na fexe bu ko yàlla mayee ci koor gi mu ñëw fii nga xamante ni mooy màkka daal di def umra waaw def màkka daal di def umra ndax am na payub euh, li nga xamante ni mooy ku aj ku munta aj boo ñëwee umra ci weeru koor xamal ne daanaka yow ak ki aj yenn yom tuyaaba moo tax yonent bi salaay salaam mi ngi wax ci xadis bi nga xamante ni ibnu abbas moo ko solo leen yonent bi wax na benn jigéen ci waa lansaar mooy ñi dëkk fii ci madina maa manaaka an taxujji maana lu la tere ba munoo aj ànd ak ñun qaalat kaana lana naadixun fa rakibtu abu fulaan wabnuhu li zawjiha wabnaha wa taraka naadixan nandaxu alayhi qaal فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة كون أبيون تبصر دفا نوتي بين جيجين نكو لطخ أجو عندك نيون منكو كات دما أم غانت منو ما دم نيون تبين نكو ويرو كور بنيوي نغا دم عمر جي تخم نك عمر تي ويرو كور أجلا كون لي حديث بوير لك بو خامتيني بو ديمي تي بخاري دانكو فيك بو ديمي تي مسلم da nga ko fekk kon loolu ngëneel la goo xamante ni nekk na ci weeru koor ku ko mën nee naa la na nga fexe rek bu weeru koor jotee te incha allah déwén ren ren moom fii ci Màkka ak Madina man maa ngi fii ci Madina daanaka julli mënuñoo julli sax ci li nga xamante ni mooy jàkk yonent bi sallallahu waaw muy lu yéeme dëkk bi am naa fi fukki at ak juróom waaye lii mi ngi fi mës a am. ci tarikh ci histoire fini ni kenn munta nafile lu sa keur xam nga li nattu yalla gënu ko reuy nattu yalla gënu ko mag motax neena iblis moom kontaan na bég na seytaane na lol lol lol motax julit bu nek war na ñaan yalla mu jëlé fi mbas mi ci lu mu gëna gaawé ndax kat ñoo jaamu yalla nu mu wa waaw ñoo jaamu yalla nu mu wa ndax kat koor gi ñi ñu fekk ñuy nafilé ci jakka yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla ren ji ñi ngi ni ñu ci biir kër yi kon le solo bo xam nit ku nek war na ci bàyyi xel ndax mon gi bari na ci aduna bi ray yi bari na ci aduna gi tay fo dem julit ak julit ngay rayante tay bo yaman julit ak julit ñaa ngay rayante tay bo demee iraq julit ak julit ña ngay rayante tay bo demee syrie julit ak julit ña ngay reyante tey boo demee libi julit ak julit ña ngay reyante tey boo demee somali julit ak julit ña ngay reyante loolu nag neexul suñu borom neexul suñu borom subhanahu wa taala waaw yàlla nak bu waxé ñu baña dégg mu waccé mbugalam ci suñu kaw rek moo tax mu ne dahara alfasadu fi wal bahr bima kasabat aydi nnas li yudiqahum baad alladi amilu mbon ngi feeñ ci suuf sépp muy kawaaris yi muy euh, euh, toog ba ci yàgg euh, ndox mi wàcc dugg ci biir kër yi muy waame yi waame yi faral di am muy tusaan tsunami yi faral di am yooyu yëpp yàlla nee na nit ñi ñoo ko ñoo ko def te xoolal xoolal tey couche bi nga xamante ni mooy asamaan si saxaar si yéeg ci usines yéeg oto yi gasoil yi yéeg li muy yàq ci manaax bi ci ci ci environnement bi kenn xamul lu mu loolu yëpp nit nit ñee ko def xoola tey déchets yi ñuy sànni ci géej gi mbuus yeeg toile yeeg yëpp doomu aadama di ko sànni di di yàq ci kaw suuf si kon doomu aadama li muy yàq rek bu dalaato bu wàcce wàtte ci kawam rek dana am problème kon doomu aadama moo war a xoolaat toogaayam ci kaw suuf rawatina julli ñi tamit jéem a jàppante yërëmante te bàyyi rayante bi kon yoy rek mën na tax yalla wacce tay febar bi nga xamne mom la wacce ci suñu kaw ndax ngi koor gi mënta dem umra kenn mënul def lu baax kon julit bi warna na allah déwén ak jàmm ku mën ci koor gi nga ñew umra nang ko def ndax xamal ne tuyaabu bu magga a la ndax ku umra ci wëru koor am nga payu ku aj am nga payu yow ko ku aj tiyaaba comme xadis bi Muhammad ibnu Abbas moom la moom la solo waaw rawatina julli ci jàkk yonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ni comme ni ko yonte bi waxee junni tuyaaba la loolu rek jar na paas Sénégal ba fii ci Madina julli boo fi jullee benn julli am nga junni tuyaaba boo jullee nag Màkka moom am nga cent mille tuyaaba mi ëtt alf benn julli nga am cent mille loolu muy ay hadith yu wer yo xamanteni ni sallallahu alayhi wasallam moko moko moko moko netali kon lolu jar na pass ñew fi nga xamanteni moy makkah medina Madina ci koor gi daal di umra daal di julli jaamu yalla kon mbokk inshallah tay lolu mo nekkon waxtan wi ni ñaan borom subhanahu wa taala mu yekati fi mbass mi mu wacce ci jaam yeb muy yëfar ak julit yalla nako yalla wacce wàccee te ñu fexe ah, xalaat naka lañ ko fi jele ndax kat la yughayyiru allah bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla du moy wacce garab ne faju len ci garab mais nit ñi ñoy xalaat fexe euh wut garab go xamanteni dana faj feebar bi ba ñu mëna a dellu ci suñu activité ñi ngi leen di gëreem den sant ñaan borom subhanahu wa taala mu may ñu dégg top wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi